La beauté n'est pas parfaite, mais la gamme Songen Skin peut l'être. Découvrez notre large gamme de produits conçus pour répondre à tous vos besoins de soins de la peau. Jeune Skin nettoyant, nettoyant pour un visage lisse et éclatant. Jeune Skin crème réparatrice pour un teint éclatant sans rides. Jeune vitamine E, crème hydratante pour une peau sans rides. Jeune Skin pour une peau hydratée et des cheveux sains. Jeune crème savon contre l'acné et la peau grasse. Jeune Skin gomme à charbon pour une peau douce, propre éclatante. Jeune Skin curcuma pour une peau lisse et éclatante. Retrouvez votre gamme Jeune à travers le réseau des pharmacies sur toute l'étendue du territoire. Avec Jeune une beauté naturelle, éclatante et saine. alors euh, lu ñu mën a jàpp euh, ci euh, météo bi gannaaw ba ñu remercier suñu sponsor waa Jenskin dinañ ñëw ci produit ci deuxième partie bi mooy nag un ciel partiellement couvert sur l'ensemble donc du pays donc ci suba si gis ngeen fii ci Ndakaaru ak yeneen région yëpp ñu daal di nemmeeku ay niir météo nag la mu fësal mooy taw du am ci bët saalumu Sénégal la ko dalee kon Ziguinchor jàpp Kédougou ci suba si du rek am ay taw ay température yu mel Saint-Louis 25 degrés à Diourbel 27 degrés euh, donc à Dakar Saint-Louis également ñu ngi ci 27 degrés bu ñu demee ba ci biir euh, réew mi euh, ñu am 26 degrés à Matam mais c'est des températures du matin il faut le donc préciser 25 également à Tambacounda 25 degrés itamit ba 24 degrés la ñu nemmeeku ci bët Saloum Sénégal ñu ñëw nag ci ngoon gi canicule la ñuy nemmeeku un peu partout au Sénégal tàngaay bi nga xamante ni dana rek daal di jéggi dayoo ce qui est mois d'octobre et mois de euh, novembre moom mooy généralement des mois de transition pour yóbbu ñu euh, ci euh, période du sedd donc foofu tàngaay bi dafay rek daal di soutenir bu baax a baax 36 degré la ñu nemmeeku foofee kon ca Matam également 37 ca Saint-Louis Dakar ñu ngi ci donc lu toll ci 32 degré ci biir réew bi nag 34 degré entre 36 degré la ñu nemmeeku diggante kon digg réew mi ak bët sàllum réew mi ba léegi météo ay taw prévoir uñu ko Euh, ci bëtt Saalum Sénégal parce que xam ngeen ne fan yii yëpp da doon taw euh, kon euh, au sud du Sénégal mais météo ne tey jii kon duñ ko rek daal di nemmeeku ñu ñëw nag lu jëm ci wàllum géej gi géej gi nag moom day fees ak affaire comme ni ñu koy rek daal di waxee marée haute bi donc midi 25 ba dina toll kon ci 1 mètre donc 54 benn marée haute la ñuy am donc mare basse bi 6 heures 3 maanaam ci jamono ji ci géej gu fer la ñu nekk beneen fer bi. bi 6 heures euh, si ngoon euh, lañu koy rekk daal di amal euh, bu tegee juróom benni simili ñu ñëw nag ci jant bi jant bi nag dana rek daal di fenk bu 7 heures jotee ba teg 3 minutes soo bi incha allah 18 heures kon 44 la ñu ko rek daal di nemmeeku di leen jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon xibaar ñu leen indil ci météo. La beauté n'est pas parfaite, mais la gamme Songen Skin peut l'être. Découvrez notre large gamme de produits conçus pour répondre à tous vos besoins de soins de la peau. Jeune nettoyant, nettoyant naturel pour un visage lisse et éclatant. Jeune éclat, crème réparatrice pour un teint éclatant sans rides. Jeune vitamine E, crème hydratante pour une peau sans rides. Jeune Skin Huile pour une peau hydratée et des cheveux sains. Jeune crème solaire charbon, savon contre l'acné et la peau grasse. Jeune Skin gomme à charbon pour une peau douce, propre et éclatante. Jeune Skin curcuma pour une peau lisse et éclatante. Retrouvez votre gamme Jeune à travers le réseau des pharmacies sur tout l'étendue du territoire. Avec Jeune une beauté naturelle, éclatante